Euh, maa ngi euh, tàmbali par euh, wax ne waaw li xew dara betuñu ci nee nañu voilà li ñu doon laaj ci ay parrain jotuñu ko am dañuy sant yàlla d'abord ndax julit lu mu fekkee rek d'abord na ci sant yàlla te lii nag moom du lu ma bett ndax Macky Sall ba ma dalee xeex ak moom contre le troisième mandat moom defe naa ne waatoon na ne du ma bokk ci élection yi ni mu waate woon ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi moom waroon na taxaw fii euh, waxtaan ak yéen booy seet ci injustice lu mu metti metti defe naa ne bosom kenn rawlewu ko ndax li mu def ba mu dem kaso taxawal Sénégal la ak ñu àndoon di xeex ci troisième mandat Macky Sall nag moom waatoon na ne moom du bokk mais man ni du ma bokk waaye loolu amul solo parce que nag ay pouvoir ci ñun du obsession li ñu tax a jóg mooy xeexal suñu réew xeexal suñu démocratie te danañ ci continuer xeex moom mooy dem dans quatre semaines mu bàyyee ñu réew waaye ñun incha allah li ñuy ñaan yàlla mu may ñu kattan ba li nga xam ne mooy injustice ci réew mi ñu continuer di ko xeex di ko taxawal damay gërëm di sant sama responsable Mimi 2024 yëpp sant suñu mandataire national suñu mandataire régionaux yi suñu responsable yi wax dëgg yàlla ngàcce gaalaam li ngeen def ci liggéey Euh, kenn mënu ko weddi ay doublon lañ leen di wax de dañ leen naan ay doublon de wala ñuy jël région wu Saint-Louis lëmm sàcc suñuy parrain waa Saint-Louis nag xam naa ne bu élection jotee loolu danañ ko fajal seen bopp lañ koy fajalee seen bopp mooy tout sauf candidat wu Macky Sall mi def ñaawteef ñun li nu jàpp mooy Sénégal mësta yegg si fi ndax nga dem ba di tànn président de la république di tiire au sort manaam di loterie lool kenn mësu ko gis ci benn réew kenn mësu ko gis ci benn réew waaye nag euh, dañuy jàpp ne lu yàlla dogal rek mooy li li ñu koy ñaan mooy mu may ñu ñun ñëpp kàttan ñu continuer nag di xeex pour suñu démocratie taxaw pour élection yi ñu jëm mu doon élection yu jaar yoon suñu collectif bi nga xam ne vingt-huit candidats lañ am na ñu ci jàll tey nu continuer di xeex pour que parrain yi nga xam ne dañu ko sàcc wax dëgg yàlla ñu delloo ñu ko parce que amul beneen baat boo ko mën a tudde ndax ñu dugal suñu clé dem ca secrétariat wu greffe ñu compté teg ci machine bi ñu ne waaw Saint-Louis am ngeen ci nangami parrain ñu ëlbateku dal di ko foqati voilà ba ñu demee di ubbi ñu ne gisuñu waa Saint-Louis euh, loolu ab jaay doole la waaye Macky Sall nag yàgg na bam di ma jaay doole waaye toujours maa ngi faire face amut fen fu ma songee fu ma delloo gi ginnaaw amut te noonu laa koy continuer voilà ndax audité na ma ñetti at ñetti at may campagne benn Bokk Yaakaar ñu may audite ma ne leen jox leen leen dossier ñu wër a wër a wër gis ne jëlu ma dërëmu waa Sénégal ànd naag moom 10 ans 6 mois kenn mënu maa taqal un franc ci lu ma jël amut mu ñu bàyyi loolu mu du soggaat ma ci ci voilà ci ci <laughs> ci participer loolu yëpp defe naa ne faj meru troisième mandat waaye war a def troisième mandat lii muy def aussi tëj suñuy xale deux mille cinq cent boole ci suñu benn responsable Souleymane Dembélé bu bu bu bu bu Tamba euh, yooyu yëpp dañu war a jóg xeex ko te dinañ ko xeex nag moom mooy dem waaye moom mënumaa génne ci jeu politique u Sénégal mënu ko parce que moom na voilà élection yi bu continuer nii mu commencer dara du ci leer ay junni junniy junni sénégalais yor seen carte ñu ne la gisuñu seen i parents ñun déjà suñu delloo suñu parents yi nga xam ne nee nañu gisuñu leen mais ñu jàll parrainage bi dix mille parrains ba ci le ministre de l' enseignement supérieur Mary Teuw Niane ki même qui est sérieux voilà dem déposer caution am ñu jox ko fiche de parrainage ëlbatiku ñu ne ko gisuñu ko ci fichier bi waaye yéen du bi ngeen di euh, li tax joxu leen Ousmane Sonko fiche de parrainage am da ngeen ne newul ci fichier bi waaye ñu newul ci fichier yi ngeen jox nag seen seen ngeen jox leen liste parrainage pour wax leen ne lii dara lu sérieux amu ci opération de sélection la ñi nga xam ne Macky Sall dafa bëgg réglé régler ses ak ñoom parce que ci règlement de compte la nekk ak ñun mais ñun nangu nga suñu 10 000 parrainage ma wax leen de nangu na suñu 10 000 parrainage foqat yi sàcc suñuy parrainage u Saint-Louis voilà terewul tey Euh, ñu am li ñu am terewu ko mu parce que mënu ko tere voilà nee nañ bon on a validé voilà trente huit mille nangam nangam mais boo ñu delloo suñuy dix mille ak delloo ñu cinq lu ñu jàll c' est très simple donc def nañu recours <laughs> def nañu recours voilà ça y est lépp lu mu songoon mu jëm ci man man amul dara lu ci réussir dara lu mu ci réussir Ousmane Sonko mi mu song aussi tëj ko ci kaso bi mais loolu aussi du ko réussir du ko réussir ndax aussi euh, lii mu ko teg. du dara lu dul injustice wax naa ko waxati ko parce que tout simplement euh, voilà euh, doole lay jaay Sénégal loolu nag waa Sénégal aussi dañu bëgg a ànd ak ñoom pour faj ko pour réew mi teguwaat ci yoon vraiment ñu amaat benn changement ba nga xam ne Amadou Ba mi ga xam ne moo ne day continuité moom ku dugg ci urne la ngay njëkk def mooy seet ana bulletin nga def ko ci poubelle loolu nag ñun dinañ ci ànd campagne ci parce que suñu avenir u réew euh, du ñu toog rek ak lu mu metti metti lu ñu def ci wàllu injustice du tere ñu continuer moti am am motivation am engagement ànd ci ak responsable Mimi 2024 yëpp ànd ci aussi ak le collectif des 28 ñu aussi féliciter waa diaspora ñoom it seen taxawaay rafet na vraiment ñu xam ne ñun ñu ngi ci champ politique bi pour pour continuer di xeex li nga xam ne moom la ñu war a xeex taxawal suñu démocratie tey ñëpp a ñuy voilà ni xale yi wax kaañoo ñëpp kenn mësta gis ñuy tirer un candidat au hasard kon kay la ñu waroon a def mooy ñu bàyyi lii yëpp 190 yi retiré woon seen fiche ñu def ko ci benn mbuus rek tiré ne kii mooy président de la république mu yeex kon loolu mooy li nga xam ne vraiment moom la ñu leen bëggoon a wax euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla bu baax a baax a baax euh, julli ci sangu-sang yi euh, wax ne li ëpp solo mooy fekkee mooy fekkee comme fekkee nañu yàlla na nu yàlla may kattan ba nu continuer li nu war a xeex parce que nag combattant amul âge combattant amul âge amul sexe da ngay taxaw la nga war a bañ nga bañ ko voilà loolu it ma woo ci la jeunesse sénégalaise jeunesse sénégalaise dafa war a mobiliser wu les femmes sénégalaises dañu war a mobiliser wu lii nga xam ne Macky Sall moo ko bëgg a imposer ñu bañ ko ba tëdd wala ak lum ñu lum ñu jaral ñun en tout cas lum ñu jaral danañ ko war def dinañ ko def bu ko jaralee moom mu labaje ay élection ba candidat am dina ñun jaral lu ko raw lu ko raw pour que élection yi jaar yoon maa ngi leen di gërëm di leen sant